mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonenteem bu tedd bi aleyhi salaatu wassalaam di sant ñépp di gërëm ñépp seen mbokk Masamba Sill moo leen di defal waxtaan wi jëm ci kenn ci saxaabay Sëriñ Tuubaa kenn ci mag ñi nga xam ne ñoo jeexaloon seenu dund tàkk ci topp sëriñ tubaa cheikhul xaddim ngir roy saxaabatu rasul ni ñu toppee woon yonent bi salaatu wasalaam ndax sëriñ tubaa moo ne leen woon saxaaba yooyu seen bay ci diine roy leen saxaaba yi mu mel ne ñu tànn ci kenn kon war ko waxtaane tey muy Cheikh Abdul Karim Touré di ab nubda di tënk bu ndaw ci dunduk Cheikh Abdul Karim Touré Cheikh Abdul Karim Touré moomu lañu ñu fas yéene waxtaane tey bokk ci mag ñi Serigne Touba defaloon ak ceex ngir seexlu giñ seexlu woon lu bon ndax serigne touba cheikhul al khadim na mag mas a ci mom ne ko mbacke dama bëggoon nga seexal ma mu ne ko loma def ba ma lay seexal loma defal ba ma lay mu ne ko mbacke ñi nga seexal kat defaluñ la dara ci sax mbax rek nga leen seexale serigne touba ne ko xana xamone bo boo lolu bon kenn la kon serigne abdul karim mi bokku ci ñi serigne touba boole won ak mbolo mi ngi feeñ atum 1871 junni ak juróom-ñett benn ci dëkk bi ñuy wax Màkka la feeñe jamono waaye juróomu góor di Sëriñ Moxtar Touré waaye juróomu jigéen di Soxna Mariama Touré mu doon ku baax bawoo ci ñu baax nee ñu sëriñ bi newoon na ko sama mutt fa de am na fukki bant yu góor ak ñeent yu jigéen ñaar rekk ci nekkul wàlliyu am na fukki bant yu góor ak ñeent yu jigéen ñaar rekk ci nekkul wàlliyu te seenug baax wecc na wilaaya ñaar ñooñu ci nekkul wàlliw seenu mbaax wecc na wilaaya kon li ne ci askan wu tedd la bokk ku dégg wax jooju danga war a gëm ne ci askan wu tedd la bokk sama mutt fa de am na fukki bant yu góor ak ñeent yu jigéen ñaar rekk ci nekkul wàlliw te seenu mbaax wecc na wilaaya allahu akbar kon loola day tegtal bu wér ci ne ci askan wu tedd wu sell wu sàmm wu bokk ci famille bu tedd ca la bokk ca la meññi nee nañu it sëriñ bi daana ko wax ne ñu yàgg ci lislaam ngeen yéen seen famille bi ñu yàgg ci lislaam la ñu yàgg ci lislaam ngeen kon nag bul bokk bul bokk ci fere yi foyee lislaam fexeel ba bul bokk ci fere yi foyee lislaam maanaam gone yi foyee lislaam sëriñ bi mas na ko ne santal yàlla mu ne alhamdulillah ñetti yoon mu ne ko sa jënn jëf mustanen sa jenn jëf joo ma sa jëf rek mustanen jëf joo jëf borom nangu na ko akbar lu jafe-jafe loo ma sa def rek sa borom nangu na ko te jenn jëf ju ñu nangu rek doy na abdou karim jenn jëf ju nangu rek doy na abdou karim ndaxte sëriñ Abdou Karim mbokk la ci sëriñ bi mbokk la ci sëriñ Touba ndax Ahmadou Soxna Bousso ak Saïd Soxna Bousso ñoo bokk lépp Ahmadou Soxna Bousso moo jur maam Astawaalo mi jur maam Jaara maam Jaara Bousso ci Poroxaan mi waay juru Cheikhuna Cheikhuna al Qadim Saïd Soxna buso Mujur jur aminta jëmmu mi jur ab sa njaay mi jur maram der. mi wajur serigne abdou karim mom serigne abdul karim am njàngam bagi ñu bëggee waxtaane am njàngam ba mu tollee ci waxtu jàng alquran ku ñuy wax maam kooja moo ko dalal bi mu tollee jàng alquran maam kooje moom moo ko dalal alquran fan la jébbaloo ci sëriñ Tuubaa mi ngi jébbaloo ci sëriñ bi ci Mbàkke Bari ci Mbàkke Bari ci la jébbaloo ci sëriñ Tuubaa nee ñu bi mu jébbaloo ay mbokkam jël si nañ ko ay mbokkam jël si nañ ko jël si nañ ko ñaari yoon ba ko ñetteel sëriñ bi ne leen bàyyi leen ko fi ànd ak man du tee xam li nga war a xam allahu man du tee xam li nga war a xam ndax moom sëriñ Tuubaa boo nekkee moom ni mu lay xamale yàlla ni la lay xamale islaam ni la lay xamale diine mu leen ànd ak man du tee xam li nga war a xam du tee amit li nga war a am bu ñu xoolee wàllum tarbiyam moom sëñ Abdul Karim mi ngi tarbiyewoo ci dëkk yi mu ngi tarbiyewoo Tuubaa gànnaar ci yenn jolof njaarim kon fu sëñ Tuubaa mos a tarbiya rek tarbiya na fa ndax ñeent yi walla juróom yi mooy dëkk yi nga xam ne fa la sëriñ bi gën a yàgg Tuubaa gànnaar ci yeen ci yeen jolof njaarim ñeenti dëkk yi bokk na ci yàggug tarbiyam nee nañu takk na laxasaayam fukki at ak ñett allahu akbar fukki at ak ñett takk na ko laxasaayam di murit seen Tuubaa fukki at ak ñett ak genn wàll am nañu ne at ak ñett ak genn wàll takk di murit Sëriñ Tuubaa yoo xam ne mësu cee tàggoog njàpp fukki at ak ñett yoo xam ne mësu cee tàggook njàpp musu cee faat waxtu allahu akbar ku fonkoon sunna la fukki at ak ñett yoo xam ne musu cee tàggoog njàpp foo ko fekk mi njàpp te musu cee faat waxtu allahu akbar kon mak ñi noonu la ñu àndee woon ak Serigne Touba kenn musu cee doyadal sunna lu tol ne tarafatal ayn mi ngi yewi ko njaareem njaareem la yewi ko ak moritom sëriñ bi yewi na ñaari yoon Sëriñ Tuubaa da ko yeewi ñaari yoon ba ko ñetteel mu ne ko sa boroom mayetuma ma liggéey loola saa boroom mayetuma ma liggéey loola da ko yeewi mu dikk mu yeewiwaat ko mu dikkaat ñetteel yoon mu ne ko sama boroom mayetuma la mayetuma ma liggéey loola toll nga ci garab boo xam ne mënatuma laa liggéeyloo ba mu ko waxee loolu la woo Cheikh Mahmadul Moustapha al Karim ak Cheikh Massamba ak ñu bari ci mag ñi ne ko li may dikkal mën naa le cee yaatal ba mu mel ne yaa ko moom may dikkal mën naa la ci ba mu mel ne yaa moom waaye dama lay defal lu gën loolu ñooñu ñuy wax seex ñooñu wax seex ci laa la boole ñooñu ñuy wax seex ci laa la boole daal koy booleek maam Moodu Aminta maam Moodu Aminta kon ñu taxaw ci baatu ñooñu lay wax seex ñooñu ñuy wax seex ci laa la bëgg a boole ñi ma seexal ci laa la seex mooy lan seex mooy ku sëriñ Tuubaa liggéeyloo ba gërëm la ba nga am ngërëmam mu jël mbooloo booleek yow bokk na ci màndarga ñu koy xamee mu jël mbooloo booleeg yow waaye bu ñu fàtte ne daana wax ne ni mu daan misaale Cheikh ni mu ko daan fiire moom sëñ Tuubaa Cheikhul Xadim daana wax ne Cheikh garabug tool la garabug tool nag bu ruuj jotee kenn ku nekk da nga yéeg summi sa mbubb bu wékk fa. jël biro ndox bu sedd bi teg fa jël gono ye ya teg fa waaye bu toll gi teg googu ñu fay teg biro yi di fa wékki mbubb ya di fa noppaloo loolu su jàppee ne dara jala dara jala ba ba mu koy tiitaroo ca moromi garabam ya suñ tubaa nee na xaar ko rek ba ruuj ma jeex moo garab yépp a yem bu kenn ko ne wekki sa mbubb dem ñu jël biro yaa gono yi ya jóg moo garab yépp a yam suñ ko daana misaali ceex ak seex ci lu mel noonu daana wax ne seex gaal la xottu gaal la te xottu gaal waajut xottu gaal la te xottu gaal waajut luy loolu mooy gaal soo yoree gaal nit ñi dikk kenn ku nekk jël mbubbam dénk la ñi dénk la seen kaala ñi dénk la seen tubéy ba jot kenn ku nekk sangu ba set ñëw laaj kaalaam laaj mbubbam laaj tubéyam sol ba gaal gi widdi jeex tàkk yow boo amul woon loo ca denc doo mën a waaj kon yooyu misaal daana ko misaale ci seex kon bi mu ko yeewee boole kook maam Moodu Aminta mu sant ko ba Màkka Touré ba mu demee bokk yépp jébbali ci moom mu nekk fa ba ni mu sance baaku ba ni mu sance baaku baaku jéeme ca seen jóge fa dem tànneeful tànneeful la ca teg jóge fa dem Gossas jóge fa dem Korcila Kor Korjila jóge fa dem fu ñuy wax Kamadu tudde ko Bushra Kamadu googu la tudde woon Bushra jóge fa dem Kelew maanaam jóge fa dem Kelew tew dëkk bu ñu naan Kelew tew jóge fa dem tion jóge fa dem touba touba salum dëkkub sering basiru mom serigne julit haqqan Mana jóge fa dem euh, maanaam sering basiru dëkkub sering basiru la mom touba salum Mom sering bi julit haqqan la di bu sëriñ bi nangul ak taalibeem sëriñ abdou karim julit haqqan la won di taalibe bu sëriñ tuba nangul ak taalibeem gërëm ko séxal ko mu jéxal dundam gépp ci jàng alquran damay wax ne cheikh yi nga xam ne ñoo fi jaar yi sëriñ tubaa seexal boole leen ak mbooloo ca ëpp ñëpp tamit wala mën naa ne ñëpp gisuma ci ku won alquran ndax suñ jox daane ko bokku na ci adresse bi daan bi daan bëgge nit mooy man alquran te murate ni na ci seex ya fa demoon ku fa dem bala ngaa jàng xam-xam wala ngay taqoog sëñ bi danañ seet sa alquran ba pare wax nañ ko ci suñu euh, waxtaan yee jàll ne sëñ euh, baara xarifaal bokk na ci ñi nga xam ne ñoom la sëñ tubaa dénkoon loolu ngir ñuy seet alquran yi ku fa ñëw bala ngaa commencé jàng xam-xam kon mu jeexal dundam gépp ci jàng alxuraan ak tudd yàlla di tudd yàlla ci kurusam ak di jàng alxuraan ak waxtaan ak doomu aadama yi daana waxtaan ak doomu aadama yi ci lu leen di jariñ ci ci lu leen di jariñ ci lu leen di jariñ tey ak ëllëg àdduna ak àllaaxira ku bari woon lu muy waxtaane sëriñ bi la ku bari woon lu muy waxtaan ci sëriñ Tuubaa la ndax sëriñ bi moo ko ko digaloon sëriñ digaloon mu bari lu mu daan waxtaan ci moom lool moo tax sëriñ bu daana ko faral di jëli mu koy waxtaanal ci sëriñ bi ba mu guddi su guddi gi soree mu delloo ko nga xam ne ñoom ñu bëggoon ñi daan toog sëriñ Serigne Touba lañ ñu leen di wax ci Serigne Touba kon daana toog moom moom Serigne Souhaïbou ba mu guddi mu delloo ko bokk na ci ay ngëneelam sëriñ bi nee na Seydunaa Jibril bu daan ñëw ci moom aw meloom la daa yor Seydunaa Jibril alayhi salaatu wasalaam bu daan ñëw ci Serigne Touba meloo Serigne Abdou Karim Touré la daan yor. loolu nag kon mën nañ ne sëriñ Abdul Karim Touré buñ koy comparé buñ koy muqaarana di ko gam-gam leeg saxaaba yi dañ naan dexyatul kalbiye lañ koy nirooleel foofu ndax sayduna dexyatul kalbiye kenn la woon saxaabatu rasul sayduna jibril lu ëpp bu daan ñëwal yonente bi alayhi salaatu wasalaam melaw dexyatul kalbiye lay yore melaw dexyatul kalbiye lay yore ba ci dañu nettali ci siira ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu jógee ghazwatul xandaq ba sunu borom ne ko bu leen teg seeni ngàndaay lu may da ngeen a dem ba ca waadi banu quraysata bu leen teg seeni ngàndaay bu leen teg seeni ngàndaay yonent bi alayhi salaatu salaam nekk ak suñu da Aïcha ci wanag bi di sangu ba mu yàgg mu génn moom alayhi salaatu salaam dox ba ci digg ëtt bi ci aw fas am ku nekk ca fas wa mu wéeru ci fas yi di wax ak moom Aïchatu nee na ma génn daal di xool seen ko mu taxaw ak ku yéeg ci fas nee na moom mu dëpp continuer ab sangoom bi yonent bi dikkaatee mu laaj ko ne ko waaw ki nga taxawaloon kum doon yonent bi ne ko kum lay niru mu ne ko dee xeetul kalbiya mu ne ko déedéet du dexee waaye naa Jibril la sedd naa Jibril la ma dëkkaloon di ma wax ne ma sa boroom nee na jullit ñi bu ñu wér seeni ngànnaay lu dul ca waa di bani Quraydata ca quartier ba bani Quraydata dëkk ci diina ndax ñoom ñoo waroon yonent bi ñoo dem ànd ak waa Xurayshin ba Xurayshin doonee fukki sol fukki junni soldaar ak ñaar ñoo dem complété leen ànd ak ñoom war yonent bi te dañoo amoon ak yonent bi accord def ak moom xelf maanaam xalif la ñu woon ci yonent bi doon ay aliyem ne ko du ñu xeex ak yow doo xeex nañ am ak yow jàmm doonte ay yahud lañ yonent saa salaam def ak ñoom noonu ba xoraysin euh, euh, ñëwee ñu jàpp ne yonent bi lislaam da yem fii dañ ko songandoo benn yoon ñu war ko ak la ca xew ci Abu Lubaaba ma demoon di leen wax ne leen yonent bi bu leen jàppee nii la leen def da leen di rendi loolu lépp ci xewoon kon dañoo bëgg a wax foofu rek ni Serigne Abdul Karim ak Serigne Abdou Karim Touré Cheikh Abdou Karim Touré bu ñu ko doon gam-gam la ci saxaaba yi dañ naan dexeetul kalbiya lay taxawee foofu ndax lu ëpp bu Seydina Jibril daan dikkal yonent bi meloo dexeetul kalbiya lay yore. bi mu paree moom yonent bi alayhi salaatu salaam dafa laaj saxaaba yi neen ëmb ku fi jaar léegi ku fas ñu ne ko ah kay am na ku fi jaar kay. mu ne leen kum doon ñu ne ko dexeetul kalbi di jaar ne faru fas mu ne leen du dexee de Seydina Jibril la daa yore melaw dexeetul kalbi saxaab bu tedd la woon moom Sëriñ Abdul Karim nag ku amoon taxawaay la jëmmam buñ ko misaal ñu ko mës a gis dañ naan ku amoon taxawaay la maanaam njool la woon ku xeesoon la maanaam dafa xeesoon ñuulu doon te góore yu maanaam ku taaru woon la ku taaru woon la suñu borom da ko joxoonub taar comme taarub yusufa alayhi salaatu wasalaam moom sëriñ Abdul Karim Touré bokk na ci sifaat yiñ ko mën a xame ku fonkoon jublu penku la mësta toog te jubluwut penku dawut toog te jubluwut penku loolu nag dañ naan melo meloy ahlu tasawuf la suuf suufiyanke yi ñooñu loolu bokkoon na ci seeni melo Sëriñ Tuubaa dawut toog te jubluwut penku bokk na ci jaayante woon ak borom doyul toog di tàllali tànkam rawatina muy jublu penku bokk na ci seeni melo du ñu tif li jëmale ko penku duy teggin kon sëriñ Abdou Karim Touré bokk na ci misaal yi ñu ko mën a ràññee ku fonkoon toog jublu penku la ndax toog jublu penku soo ci ji ci jubloo jaamu yàlla jaamu yàlla lay doon danga ci am tuyaaba kon loolu war nañ koo royee ci sëriñ Abdou Karim Touré toog jublu penku li ëpp ci melow toogaayam mooy ferenkulaayu ferenkulaayu tamit lu nit yàlla yi bëggoon la ferenkulaayu ak ifda mooy toogaay wi nga xam ne moom lañuy toog bu ñu julli lu nit yàlla yi bëggoon la kon sëñ Abdou Karim Touré bokk na ci melokaan wi ñu ko daan xàmmee mooy bu daan toog day jublu day ferenkulaayu ku fonkoon kaala la loolu ba tey bokkoon na ci melo yi fii yi motasawif yi dañ daan kaalawu fu ñu toll dañ daan dañ daan kaalawu ndax xista boobu ñu nettali ci maam Cheikh Mbay Sëriñ Sam doon ko nettali ne maam bi mu nekkee tu tànk toll ci dal jàng daf daan jël mbub mi di ko muur ci bopp bi buñ ko laajee li muy def lu ci jublu bi mu nekkee mu kàllaf mu ne booba dafa àgg fi góor yàlla àgg dafa àgg ci àgg waaye góor yàlla yi te amut amut kaala moo tax muy jël mbub mi di ko dugal ci bopp bi moom la fu mbub mi di ko dugal ci bopp bi di ko sol ci bopp bi kon sëriñ Abdou Karim Touré ku fonkoon kaala la te kaala bokk na ci yu am solo ci lislaam ndax yaa bani aadama xudu sinatukum inda kulli masjid wala maa yu taawil nañ ko ci ne nit ki buy dugg ci jàkka rawatina mu doon imaam dafa war a kaalawu ndax dañ ne imaam kaalawu gi xilaaful awlaa la xilaaful awlaa gi mi ngi gën a tare ci maamum yi maamum yi waruñu ko seetaan mukk moom imaam muy jiite nit ñi julli julli eh, juróom ba pare kaalawut bal dañ naan sax bu fàtte woon a kaalawu maam yi kenn ci ñoom moo war a dindi kaalaam kaalaal ko ko moo war a dindil kaalaam kaalaal ko imam kon loolu bokk na ci yi nga xam ne taarub taarub jàkka la taarub bërëbu jullikaay la mot sooy fonkoon nañ ko lool moom suñu Abdou Karim Touré bokk na ci melo yu ñu ko xàmmee bu daaree da daa muuñ bu daa ree da daan muuñ loolu kon melaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam la yonent salaam bu daan ree da daan muuñ dawut xàqataay ree ba gimiñam fees dawu ko def ndax ree ba sa gimiñ fees euh, lu ma tasuuf nañ duy teggin bu daa ree da daa muuñ li ëppoon ci colom mooy lu weex Sëñ Abdou Karim ëppoon ci colom mooy lu weex col gu weex ñun sasam daana ko wax daa ne dee leen sol col gu weex ndax moom ngeen di sàng seeni néew maanaam seeni way faatu col gu weex kon bokk na ci màndarga mi ñuy xàmmee mutasawif suufi yu bokk na ci màndarga mi ñu koy xàmmee mooy col gu weex sëriñ Abdou Touré ku amoon kàddu la ku amoon fasaaxa la waxam da daan leer dawoo ko nattable loolu melee yonent bi la alayhi salaatu wasalaam yonent bi ku amoon fasaaxa la sëriñ tubaat ku amoon fasaaxa la du wax dara mukk nga génn di ko laaj ak di ko nattable kon bu mosaa wax kon dee su ko laajaat ku lewet la woon moom sëñ Abdou Karim ture ku lewet la woon lewet bokk na ci melo yonent bi alayhi salaatu salaam ku lewet la ku bari yërmande la woon ku bari yërmande la woon ci mbindeefi suñu borom bi subhaanahu ku fonkoon ak mbokk la moom Serigne Abdou Touré Karim Touré ku fonkoon ak mbokk la te ku ne xam na ne sunu boroom moo ne mbokk rox mu mi ngi jóge ci rahim sunu boroom ku fonk mbokk la moo tax ku dagg mbokk mu dagg la Serigne Abdou Karim Touré ku mënoon dox ak mbokkam la te daa ko toppatoo ku yaatu la woon koo xam ne ku ko xam sopp ko ku ko mas a xam rek jaxasoo ak moom rek sopp ko te dootoo bëgg a tàqaliko ak moom ku ko sopp dootoo ko mën a muñ ku tabe la woon tabe bokk na ci jikkoy nit yàlla yi ku tabe la woon dara dawut euh, dara dawut des ci loxoom moom Serigne Abdou Karim Touré dawul denc dara lu mu am bokk kook jaami yàlla yi dawut denc dara lu mu am bokk kook jaami yàlla yi sëriñ tubaa dafa war a masoo wax sëñ euh, Cheikh Mamadou Moustapha ak sëñ Maxtaar Bintaloo ci Ceen ne leen taalibe yi lu ñu leen jox bu fekkee soxla na ngeen ko ca faj la ca des ngeen delluwaat ko taalibe yi waxut ngeen denc ko di wutal koy compte de kon loolu bokk na ci melokaani sëriñ bokk na ci melokaanu nitu yàlla dara du dara du takk seen loxo lu ñëw la fa nekk ci soxla lañ cee faj la ca des ñu delluwaat ko ci teel bi waaye dawuñu ko denc ci banque dawut bot di kenn moom sëñ Abdou Karim Touré wala muy mere kenn dawut bot di kenn dawut mere kenn mi ngi làqu 1976 alfati somia wa sitta wa sab'un junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ci gàddaay yonent yàlla Muhammad wala ci atum milaadi ci la Serigne Abdou Karim Touré wàcc ab liggéey 1976 ak dundam toll ci téeméer ak juróom-benn téeméeri at ak juróom-benn la dund moom Serigne Abdou Karim Touré lépp mu jeexal ko ci lu neex boromam. boroomam lépp lu neex boroomam ci la jeexal ak dundam am na ay xasiida yoo xam ne woy na ko am na ci yoo xam ne am na ci am na ci lenn loo xam ne dañ koy topp dañ koy topp dañ koy toppaat fi mu toll waaye bu noppee insha allahu des na ko génne yàlla nañu yàlla taas ci barkeem barkeb sëriñ abdul karim Touré te dolli ko ngërëm ci barkeb cheikhul qadim radiyallahu anhu wa ardaahu amin allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa ummatihi wa sallim tasliman mbokki jullit yi mbokki taalibe yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne seen mbokk ma sàmb sill moo leen doon defal waxtaan wi ci jëmm ju tedd ju sell àndoon ak Serigne Touba Cheikhul Khadim jaayoon léppam jënde ko ak taalibe muy Serigne Abdul Karim Touré di kenn ci asxaabu xaadim rasul di wax ne lu jub ci wax ji borom bi subhaanahu wa taala moo nu kattanal Serigne Touba dooleel nu lu dëng ci wax ji ñu di ko jéggalu te xam ne doomu aadama matut ngir sunu ñàkk xam-xam ak sunu gàtt fasaxa kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu barakatuhu barakatuhu